nous avons besoin de vous. Moi, je n'ai pas besoin de l'État. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous êtes prêts loolu mooy suñu challenge suñu challenge du leneen. man mon grand-père wala mon arrière-grand-père yéen ñëpp xam ngeen il a été chef de canton. il a fait beaucoup de choses même ci ñenn ñi nee nañu daf leen doon noggatu mais Badji la doon parce que les paresseux mais tey si on a réglé le problème de la route Tobor-Ziguinchor c'est grâce à lui même s'il a contraint les gens à le faire n'est-ce pas waaye tey ñu ñëpp xam nañ ni loolu njëriñ la. Si l'école est entrée très vite dans le gannaaw yàlla c'est grâce à lui ñu bëri bañoon nañ mais ñun ñëpp am nañu léegi loolu njëriñ la kon ñun soxlaatuñu ku ñu contraindre parce loolu jamono colon bi la mais ñun mun nañ ko defal suñu bopp ñooy bëgg suñu bopp bëgg suñu réew. s'il y a des ñu jógandoo parce que biñ doon forcer nit ñi ñu yenn de gros cailloux de gros. Euh, morceau de de truc pour teg de pierre di ko yóbbu pour teg au niveau de la route de Tobor il il n'était pas content est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui maintenant à faire la même chose mais volontairement parce que nous loolu laa soxla ci yéen soxlawu ma leneen des bàyyi leen ko parce que am nañu gis-gis bi am nañu xam-xam bi am nañu yéene bi et c'est ça que nous voudrons faire avec le Sénégal parce que un pays waa réew mi koy tabax on vous dit les bailleurs de fonds ceux-ci ils prennent des avions dem di saraxu xaalis di lekk ñu koy fay des générations des générations un pays c'est les fils et les pays ñooy tabax réew mi est-ce que vous êtes prêts donc lépp lépp loo xam ne am noonu nañ ko yéene am nañ ko yéene bis bu ñu dénkee réew bëgg nañ ko expérimenter même sur le plan mémoriel plan mémoriel mooy lan tey sooy doxantu biir Ziguinchor quand je te dans les rues de Ziguinchor tu l'impression peut-être que tu en France surtout ñuy wax escale On te dit quoi Rue Javelier, rue Lieutenant Triche, rue Le Moine, rue de France, rue Général de Gaulle. Nous, on n'a de, on Il y a des gens qui doivent rentrer loin. Mais c'est important. Parce que c'est le résumé de notre combat politique, depuis La souveraineté, la fierté d'être ce qu'on est, mais surtout la fidélité à notre histoire. Parce qu'on nous a fait croire qu'on n'a pas d'histoire. Le vainqueur a écrit l'histoire. Le vainqueur Moïkan, c'était le colon. Et nous a dit que nous n'avons pas d'histoire. est xam ngeen kan mooy capitaine Jaboli ici à côté y a la, la rue capitaine Jaboli capitaine Jaboli en il a fait un recrutement forcé ici à Bignona ñu jël ay soldats des Bignonois engagé leen par par force yóbbu leen première guerre mondiale il en a mené 117 ces 117 sont allés et ils ont été tous massacrés avec lui ndax moom it il est resté là-bas ils ont été massacrés au mois de novembre à Arras en France moom ñu jël ko ñëw tuddee ko fii une rue pour lui rendre hommage mais les 117 Casamançais qui sont morts là-bas c'est des anonymes et 60 ans après l'indépendance nous on continue en célébrer ce monsieur le lieutenant Truche, le lieutenant Truche, il a opéré des massacres dans le Kassa. Parce que les gens avaient refusé de payer l'impôt. moom mu ànd ak. 500 euh, 500 un détachement de 500 hommes. et il est allé massacrer les gens. et les gens se sont organisés. les clubs yu ayul ñoom ñoo ànd ak les gens du village de Kagnout et en 1886 ñu organiser benn contre-attaque et ils ont tué là-bas euh, le le le le le lieutenant Triche le on donne au lieutenant Triche le nom d'une rue à Ziguinchor c'était normal tubaab yi ñoo ñu coloniser woon mais nous après on continue. C'est pourquoi cette rue, si je suis maire, va s'appeler

Je vous poser une question. Elle est très simple. Je connais ma relation, la relation affective extrêmement profonde du à la Casamance te li ngeen wax ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd mais d'accord ma pour autant je ne suis pas d'accord vous voulez que je sois maire de Ziguinchor était forte ou des communes appartenant à la même mouvance politique les maires les présidents de conseils départementaux se retrouveront autour de programmes mettront en commun leurs moyens que s'il s'agit s'il s'agit de donner la commune de Karchak jox Thionck Essyl Macky Sall jël jéegul c'est pas la peine nous voulons toutes les communes quelqu'un a dit qu'il y a deux régions qui sont ces titres fonciers moi ne réclame pas de titres fonciers c'est à vous de donner un titre foncier. te il n'y a aucune logique aucune logique. La deuxième chose. Pour ça, ce que je veux, et je le dis à toute la Casamance, les maires qu'on va vous présenter, sachez que ce n'est pas des individus qui se... bu leen jàpp ni benn nit isolément moo ñëw pour nekk maire na ngeen xam ni c'est un projet qui se présente à vous et que ce candidat là benn élément bu ndaw la ci biir projet boobu et que tous ensemble après il s'agit pas de, de nommer un maire après dem toog Après dire il n'a pas travaillé, il a travaillé. On va faire une gestion inclusive avec un engagement citoyen permanent. li doon wax il s'agit pas de d'élire un président dem toog ne may leen ko mu liggéey il faut être là et surveiller se fait et donc tous les profils qu'on vous propose votez massivement pour ces profils tous les candidats qu'on vous propose na xam ni ci projet la ñu bokk Et ce projet-là, il y a Yévi Askami, et ce projet-là, il y a Ousmane Sonko. Votez pour ces gens. La deuxième condition, Loli, vous savez très bien que par la grâce de Dieu, ce pas un mérite. Tous les gens loolu du mérite su amee mérite 10 pour la moo tax tous les gens qui s'agitent ci la ba bëgguñu ñi ngi tout le temps ci ci réseaux ak ci télé yi saaga nañu xam ni yàlla mooy maye. man bu sama mérite yàlla mooy maye nit gën naa sonn pour man puuf ci politique te amul lii bu yàlla def seen i dina jeex dina jeex. complot du ko jeexal ay pexe du ko jeexal kenn mënu korom kenn mënu maa transhumé kenn mënu maa menacé yàlla rek ko mën a jeexal. mais li ma ko wax mooy par la grâce de Dieu yàlla def na ma un leader national. international yàlla may na ma du ma mel ci Casamance du ma ne noonu laa mel feneen ak waaye sorewu ko ndax Dakar li ma nekk di ko liggéey mënatuma génn dans la rue donc je n'ose pas mënatuma dem salle de sport mënatuma dem fenn je suis obligé de rester chez moi parce que fu ma génn il y a assouvement loolu yàlla moo ñu ko may ñu ngi loolu nag moo tax même si j'étais candidat à Ziguinchor damay obligé de battre campagne pratiquement sur tout le territoire national pour dooleel suñu candidat yi fa nekk dinaa battre campagne Dakar pour jàppale candidat Dakar dinaa ko def Saint-Louis ko def Kaolack dinaa ko def feneen kon mënuma 21 jours campagne yëpp ma nekk fii est-ce que vous garantissez que vous gérez Gérer la campagne. Voilà. Sous réserve de ces naa leen wax yéen ma ko Sénégal ñuy suivre ñëpp ma wax ko àdduna bi yëpp que incha le 23